kéefar kii di xaarifu billahi yàlla rek man lo séparation boobu yàlla rek man mu a wa daraba laahu masalan imraata firawni is qaala rabbi ibni li ka baytan fil jannati wa najjini a firawna wa amali wa najjini min xam yàlla ma tabaxal néeg ca yow bu ko coobaree yàlla gi daan wax nag du xam ngeen coobaree yàlla gi maa tey yàlla gi mooy Baay Ñas waaw mu nekk ensuite ñaanoon xal janna néeg la jëm waaw waaw sëñ Haadi xam nga ne aljanna néew aljanna bu neexoon asir ñaan ko aljanna lu fa nekk lekk ak naan ak wuuri xëy nii danay wax ne soo fa jiitoo sa jabar takk ci wuuri lay nii sa jabar fekk la fa doo am problème ci ñu naan jann joo am jigéen bëggoon wujju day am da am problème waaw boo fa ji jiitoo sa jabar takk ci wuuri xay nii mu fekk la fa ci ñu naan jann <laughs> amut problème am problème laaj naa Serigne Mamoud benn bis na ko ndax xaal jann am na woon ak am déet mu ne ma loolu kenn mësuma koo laaj Serigne Mamoud Niass ci laa ko mos a déggee dégguma ko ci alxuraan dégguma ko ci hadis dégguma ko ci hadisul xut yaa ma ko mas a wax yaa may tekkil nag ma ne ko aljanna de bu fekkee am na woon ak man pare naa ci na yàlla seet keneen kum ko jox bàyyi du usé la ñàkk woon ak parce que da ngay lekk na moo ne xulaa bi salaamin sall ko yóbbul ko doon law maayi sow na faa wadee na tilkal jënnatu urstuma bi makkuntum tawn wala ko faati faakeyotun kasiritun mu mi naa tàllu lépp nga fa ci li ñam ak ay fruits lépp nga fa lekk leen du loolu la wax waaw boo lekkee ba pare nag war nga ko génn baa gu mag boo ko gé boo ko génne dooto da ngay am problème waaw waaw boo naa ne lambisonte moom it il faut nga génn gaa yi jànn neexut xam ngeen lu neex jëmmi yàlla ji ji sëñ Tuubaa xamaloon sëñ Ibra Faal bàyyi ñes xamal ko monde ba Australie boo fekk fa taalibe bàyyi xam-xam boobu ci ngay nekkee à l'aise dootoo joteeg yàlla dara parce que lépp yàlla moo ko amel bopp waaw lépp yàlla kaka keneen néew fi kuy programme wala ngay exécuter amul waaw yéen waa Touba yi bi ngeen di jóge ci ki leen wax na ngeen ñëw ci bëgg yére yi ngeen sol muy góor muy jigéen ku la wax ne solal mbubb mi bàyyi fi mbubb mi ku leen ko wax du jabar du du bëkk nit du doom yaa ci armoire bi moo xam góor nga wala jigéen tànn mbubb ma da ca neex ci la doon waxee moom nga bàyyi Tuubaa moom nga taseet ci tur yeeg melu yu wute yi moom nga fekk fii kaaraan ana kan ci yéen moo ma mën a wanal wan boppam boo mën naa ana nu bakkan lay fab wala bopp wala nopp walay lex wala biir wala tànk wala du ma la woon Ousseynou mukk gannaaw bokk ma boolewuñ ma ci loo ci bokk loo ci bokkee di sa bokkoo boolewuñ la ci loo ci bokkee di sa bopp problème waaw ah, moo tax benn bis damaa dem direction douane di fa def intéressant ci jamonoy Pape Diop Cheikh Camara yo goro yu suddoo ñu jàpp benn bato ma def intéressant nekk laa ñëwee rek bay saag bi ma amoon ci biir oto bi chauffeur bi na bi may wàccet benn waay ñëw rek sàcc ko sàcc saag bi yóbbu ma ñëw ne chauffeur an saag ba mu ne ma gisuma ko ma dem ca ma jëng xedu ja ba mu nekk ministère de l'intérieur ma ko mu def message ci mbooleem frontières yi pour saag bi feeñ saag bi maa ngi ci amoon benn montor loo ji trois cent cinquante mille laa ko jëndoon ñaari pilim de soixante mille course yu suur bu mag boobu quatre-vingt mille yóbbu saag ma ñu ñu ne saag bi daal ni may def may damay dem Dakar wax ak yàlla ci sàgg ma ñëw ci jëppal ma ne bu ma toogee buntu jëkk jëppkaay ñu di ma romb di ma nuyu ak oto yi romb fa sareet yeeg ak nag yooyu mag yooyu fi jaar may seet yooyu yëpp daf may gàllankoor xaaral maa dem corniche corniche ma dem ba tim géej gi ne yàlla saag bi yaa ma ko joxoon ak mboolem li ci noonu léegi jël nga ko jël nga ko jox ko koo xam ni ki man xaw ma ko coo yàlla xamul sàcc bi moo ko yebal sax moo ko sàcc mu jeex tàkk mu takk moo ko sàcc waaw mu jeex tag ma ne ko nag moo mugu feeñal saak bi wala nga wutalal ma ko juróomi fan laa def Dakar jëlee naa fa huit cent mille francs ak benn frigidaire xam nga boo koy reetetee rek moo réglé sa affaire amul kilifa du xam ngeen ki may yàlla ki may wax mooy ñag kilifa waaw ci sàcc bi mu jóg bi mu jëkk xeer na ko jógal sàcc mu jël ay gàllaajam musloo ba pare jël ay matériel dem sàcc gu ci benn kër war a sàcc moo xeewaa kër ga ñu yooxoo ko jàpp ko dóor ba mu bëgg dee yóbbu police ñu enquête ko yóbbu tribunal jugé ko tëj ko moom sàcc bi maa nu toon yàlla mën naa sàcc ki ko yekkal la ki ko yëkkati kan la ki ànd nag moom mu dem sàcc kan la mooy sàcc bi ah! yéen da a foog ne yàlla ci seen jëmm ji ca mu leen leen ko làmb daj ko mu neen ko xool ak bët gis ko moo tax iblis mi ma leen wax ne fu juddoo ak fu ñu ko suul amut malakul mawti fu mu juddoo ak fu ñu ko suul amut malakul mawti bu doon jëmm dem Touba jëlee fa roog sëñ Touba gi duñ ko ñëppati ba mu jeex ah dañ koy ñëppati ba mu jeex sëñ Xaadim ma ne xam malakul mawti bu doon nit jëmm dem Touba jël fa roog sëñ Touba duñ ko ñëppati ba mu jeex du doy bàyyi ñees noonu keneen noonu ci wël yi waaw iblis moom layal na boppam damay wax ne iblis soo ko xatte ne man Ousseynou Niass man rek ko commencé wax man rek ko ñëma wax dama ne iblis foo ko tudd sallallahu alayhi wa sallam laay wax mas ngeen a dégg loolu kenn koo dégg man rek ko koy wax man rek ko ko ñëmee wax it iblis waxaale seytaanu lamaa xuddiyee lamaru déglu leen iblis sax nekk kilifa de yàlla lamaa xuddiyee lamaru maanaam bis pénc ina laa waa waa waadal xaq wa waatukum fa axlaftukum man digal naa leen dig loo xam ne man damay fen man iblis yàlla nag dig bi mu leen dig wax na dëgg ma ana bi musrixikum duur ne yéen a may sànq wa ma antum bi musrixiin duur ne a may sànq mu ne inni kafartu bi ma aksartumuni min qablu inna zalimina loo ma asaman man kat la ma moo la man iblis réglé woon naa ko yàlla démb ba fi mu nekk man xaw ma ak yàlla affaire te danay wax ne li iblis régleel yàlla yonent bi sax réglé lu ko bi muy wax aadama bi yàlla def contrat ak aadama ca ca àjjana ne yaa adama uskur wantu ko sawjatu ko wa kulla mina raxadan haysistuma wala taqraba si sajaratu fa takkoona mi sa fa was wasa ilay mu seytaan ana boobu yonent bi fi mu ne boobu yonent bi dafaa ne yàlla ak iblis ak aadama waaw coobare yàlla gi du xam ngeen ko maa taye yàlla bi aadama lekkee garab gi nag faakala mina fa baddat lawuma sawtuma wa tafiqaa yaxsifaan dalli ko yàlla xawi ko toroxal ko moo xaawaa na ko nag sama ngërëm a ngi ci foofu la fi mu ko xawee toroxal ko nag mu ay minute wa ma waasa adama rabboo fa xawaa su ma tebeewu rabboo fa taabaa liiwaat fi mu tu mooy yàlla fi la ko yàlla jégale bàyyi ñes nag ne na moom bu ko fekkoon pour mu lekk doom bi moog xawaa wàcc yàlla xawee ko mu wàcc ci suuf jur yónni yàlla moom bàyyi ñes na moom bu ko fekkewoon ren yi lay njëkkal ren ak datt bi ak bànqaas xob yi soog ci doom yi ndax mu gaaw bàyyi ñes moom loolu ko fi de fu xawaa yi nag ne nañ waasa adama rabboo fa xawaa fañ tebeewu rabboo su ma tebeewu rabboo fa taabaa ah na mun lim liggéeyal yàlla diggante Ibrahima ak Namrud réglé moom moo tax wi maa yansaxannaka mina seytaani nafsun fastahid koy muslu billaahi ana seytaane seytaane amut seytaane amut kon jibril mi leen indi jëlee leen Tuuba ngeen dugg ci oto yi solal leen boobu ngeen dugg ci oto yi jibril lay wax ak yéen ñun ñëpp jibril mi wax ca nuñ koo làmb daj ko mënuñ ko xoole bët gis ko yàlla mu nekk ci suñ jëmm yi ca duñ tàggu moom benn bis benn seconde boo ko yaakaarut muy sa wéttal looy laaj laaj ko ko fuuti nga waaw parce que boo demee tey Touba ci sëñ Xaadi Caam Xaadim Caam na ma ko soxla guddi gi yëpp kat Xaadim lay wiise tur wu ne dana ko sikkar pour yàlla tàggatal ko Xaadim Caam bu ñëwee Touba wax ko soxla faj guddi gi yëpp ci yàlla ko booleeg moom kat lu ne ñaan na ko bi mu agsee Touba ñu ne ko Xaadim yaa ngi fi waaye hubbeekul mu toog ba mu hubbi mu jàmmalanteeg moom xam nga lu mu koy njëkk a dana ko laaj njaboot geeg liggéey bi yëpp soo koo wax soxla si yàlla mi ko yebal nag moom mooma ànd xaadim it moo ngi yàlla nekk bu nekkutoon ak yàlla kenn du ko fa fekk mi ngi diggante mi ngi diggante xaadim nag ak ki ki ki ko koy laaj bi ko waxee soxla si ba pare yàllaa ngi naan xaadim jox ko bul ko jox waaw mi ngi jàkkaarlu moom de face à face ni nan ko jox ko bul ko jox ba mu yàgg xaadim gàntu nga foog ne rek xaadim a gàntu fekkee yàllaa gàntu parce que xaadim xamul ci boppam dara yàlla danay def loolu moom it ko am na koo xam ne kii dana ñëw ci moom ko sant Mbàkke wala xaritam bu mu foog buy ñëw mu recevoir ko indi limonade yépp balaa wax soxla sax mu yëkkati li mu ko war a jox kon kiy joxe ak kiy xañe kan la kenn rek la lu bëri bëri lu bëri bëri boo nelawee fàtte ko boo deewee bàyyi ko sa jëkkëri jabar yi déglu leen bu baax boo ko dundalewut ko xaadim di dundale ak li sëriñ Fàllu li waxoon loo am jox ko yàlla mu depp ko rek futi loo am lu mu bari bëri gis nañ fi borom xalal yi yi fi génn àddina ci senegal seen jabaree tasaaroo nañ seen aleel tasaaroo nañ ci xamuñ ci dara mënuñ ci dara waaw nekkal yàlla rek mooy noflaay kon ñi nga sant yàlla di gërëm nag Abdourahmane sama doom sama xarit sama taalibe sama lépp yàlla ñu boole ci zahir ak ci baatin xam na loolu waaw xaalim nag maa ngi koy ñaanal ak ñim àndat ci laxwil ma foos xaadim foog naa boobu ji nga xam ne duñ ko kaas boo ci ñaanee rek muy sécurité ko moom yàlla moom la naata njaay wax sànq mahwil ma foos nag xàllu ji ñuy raxas boo ci ñaaneen biñ du raxas tawaan la obligatoire tawaan obligatoire fi saa li nga ñaan dafa nangu xàllu ji ñuy raxas nag rubbama la xam nga rubbama jàppoo ci dara mën naa am mooy mën naa am jàppoo ci dara mën naa mu jox la wala mu dig la wala mu xaj la yéen waa Tuubaa nag maa leen di ñaanal ci laawil ma fos yàlla defar leen defar leen laa wax yàlla defar leen ci gëm yàlla ci wattu ci wërsëg ci xam-xam dooli seen bëggeel ci Serigne Touba mi nga xam ne mooy seen rajo ak mboolem lu haju ci moom. dama daan wax ak sëñ daan fekk 504 boobu ñu ma yónnee woon Nigeria bu xonq bi ma ñëw gaara fi ñuy waxtaan ma ne ko man dama laa damaa bëggoon a weccee benn taalibe Serigne Touba ñaar fukki taalibe Baay Ñas mu ma ko waaw parce que yéen seen taalibe du ñu leen wax dara ci lu ngeen soxla ñu defal leen ñun nag danañ wax ba maar koo ci ñaar laaj téeméer sax mu gàntu ci mbubb mi nga sol dana la ko laaj dana la jox ordonnance dana la wax maa ngi ngoro taalibe bi tijaan ngoog waaw taalibe bi tijaan ngoog bay mbay daana wax na ne taalibe bàyyi ku ci amut kóllëre dootuñ la jëriñoo parce que yàlla bay bay yàlla la leen boole ki ñu yàlla nag pare na ku ci amul kóllëre doon ci doon taalibe yi Serigne yi nag ñoom képp ku gis ko sant Mbàkke pare nañ jëmmi Serigne Touba yi la ñu xool ci moom moom la ñuy déglu ci moom moo tax damay wax ne taalibe murit buy jënd pousse di koy jaay wala péng bu ci saxee nag millionnaire parce que gëm gim gëm Serigne Touba Serigne Touba boole ko yàlla loola tax ñoom wërsëg jàppandi leen benn bis damay jënd benn frigidaire ci benn taalibe murit ma waxanteeg moom ba ci ma ne ko ma fay la cent mille mu ne ma déedéet cent mille ma ne ko yow murit nga am tijaan mu ne ma man murit la sëñ Fallou mooy sama sëriñ ma ne ko kooku sama xarit benn bakkan la mas na ma may fas pour ma jiyeew mu a ma sëriñ Fallou Mbàkke mu mag maa mu a ma jëlal frigidaire kasto <laughs> rajab gi nga xam ne sama kasto rajab la damaa bëgg boo paree sëñ xaadim ñëw. ak waykat bi ak waykat bi ñoo ñu gane sama mérina waaw loolu laa bëgg nga may ma ko. waaw waaw allah. ñu ngi sant yàlla cant ak yàlla ci yàlla. cant ak yàlla ci jëmmam. Eh, ñun ñi ne ci mbaar mi góor ak jigéen na ak ñi bëgg ñëw ci mënuñoo ñëw de ay bokk nañ sant yàlla yàlla mboolem ku nekk ci mbaar mi yàlla far na say bàkkaar. góor ak jigéen ne leen wóor ne góor ak jigéen dama képp ku nekk ci tànt bi ak ki joxe tànt bi ak li fi sëñ Xaadim dundale ak i mbokkam ne leen wóor ne yàlla xaa yàlla yàlla jéggal na leen mboolem seeni bakkan yu baatin ak yu zaahir waaw man nag waxuma yàllaay wax parce que làmmiñ mun la wax matière bi ci làmmiñ ñaari tuñ yi ak ñaari bañ yi ci kaw suuf ak làmmiñ yi ak tàq bi mi ci làmmiñ yu lu ci lu mun la wax kon kiy wax kan la noppit matière bi ci nopp mi ngi ci noppi tëx ci tëx mun la dégg ci bi ci nopp gën a garaaw ndax mi nga am xet goo xam ne gi comme cabinet bu la xeenu yow nit ki doo lekk ndax xesaw rab yi kenn du ci dugg ci bitti nopp wuu rek ngay dégg waaye duñ dugg ndax xet waaw matière bii ki ko liggéeyi sollo daf ci yow boo yaakaarul kooku koy yaakaar xamoon ngeen ne ñam neexul ba ca hôtel Teranga ak ñoo hôtel ak marijana bi ci suñ kër yéeg benn ñam neexul xam ngeen lu neex yaramu doomu aadama ji bu bu àggee ci soixante-dix degré ba yaram wi sedd lu mu lekk mu neex lu mu mëcc mu neex lum mu yëy mu neex waaye bu sibir bi ñëwee nag ak tension bi ak jabet bi ak piccab saalum bi ñuy wax kajoor tàngar yaram yi ba mu àgg ci cent quarante degré ba ndoxum gémmiñ bi naqadi loo lekk mu naqadi loo mëcc mu naqadi loo yëy mu naqadi bu boobaa nag dañ la composé nag ngurbaan def ca daxaar def ca nëtutu ak limam ak jimbo bi pour nga mën koo lekk waaye comme suuf lay nekk ndax lan ndoxum gémmiñ bu mën a xadi xamoon ngeen ni kenn ci ñun mun la lekk lekk lekk benn lekk neexut kese mi mën nga koo togg lekk ko diwlinu kese gi yàpp kese gi jënu kese bi sobli si kese gi demet ba lépp pare nga def ko ci ndox ndox mi ci ndab li neexut ndox gémmiñ gi ma leen wax mooy neex xamoon ngeen ni du mënu leen a lekk kattanal yàlla mi tibb ci bool bi moo xam kuddu wala fourchette wala loxo yëkkati ko mu dem directement ci gémmiñ gi moom tibb bi yàllaa ngi regle ñaari nooni làmmiñ yi xam nga làmm yi bañ yi ci suuf ak ci kaw ñooy nooni làmmiñ yàlla réglé tibb bi nga sàqar mi ko ba mokk seen ñaari bëñ yi mattuñ làmmiñ yi pour tibb ron waaw kattan loolu ak technique boobu ki ko def ci yow boo ko yaakaarul béyee ko sa bopp koo koy koy yaakaar koy béy sa bopp boo ko sax xamee ba mokk nag nga wan na ko weextaan bi sànni ci gutam bi su ko ci sànnee yàllaa ngi liggéey li li njëkkee ak liñ añee pour ñu génn ko bu bu bu estomac bi réglé bu sànnee weextaan wi weextaan bu ci sànni gutam bi ci la lekk dafay tasaaroo ci biir bi yàlla ngi koy liggéey lii deret lii siddit lii ndox lii li li graisse li sébrit mu ngi koy liggéey ci tib añee ak bi bi bi ñu reere ak bi ñu su fekkee ne waxtaan ni sànni ci guddi ba mu tasaaroo nag bàgg ci mbaam mboq gi boo doon compter ay euro milliards it da nga ko fa bàyyi dem coono ma waaw wala nga yàq sa bopp ak koo mën a doon nag boo dee milliardaire wala ngay yónut kooku mën a doon da nga fa bàyyi la ngay def dem ca ca ca duus bu fekkee waxtaan wi sànni ci guddi ba mu tasaaroo di dox baa gi ci mbambuq gi war a ware ca booy dem nag ca wane sa jabar ji gën a miin xam yi nga xam cëram da mu fekk dafa ndax coow la coow la waaw coow la bëgg fekk la ko waaw bu fekkee na nag wextaan wi sànniwu ci gutam bi da ngay seere bu boobaa nag boo demee ngelaw rek ay génn ca foo toll yaa ngi fees ak sobe ndax yow war nga rëy see boobu nga sol mbubbam jamaa waral otob jamaa mbaxanaam jamaa lu nekk na nekk jamaa ci yow waaye sa lépp sobe la xam nga li seet ci yow mooy yàlla mu nekk ci sa jëmm ji ca mën na ko làmb daj ko mën na ko xool ba gis ko benn làbbe dafa fekk balaam Jóob di conférence ak Baye Modou Thiam moo leen leen danaa leen laaj yéen jullit yi da ngeen ne man yu sobe la ca man yu mooy sos mboolem lu yàlla bind Baye Modou Thiam na ko comme mënuñ ko tontu nañ dem ceeb ci sëriñ bi ñu laaj ñuy ñëw ci Baye wax ko ko Baye na leen ah làbbe bi kat jam na leen waaye bu ngeen demee ne ko baatab laa ilaha illa allahu biñ gëm ak topp lim digle bàyyi lim tere moo ñu setal ñun julli nii ba dootuñ tilim yéen ñi ko bañ nag moo leen tilimal ngeen tilim ba bés pénc du ngeen set bi bàyyi ma càam ñooy wax ko labbe bi labbe bi ne toog ba mu yàgg mu ne bàyyi ma càam na ko toogal mu ne ko déedéet yow li nga ma wax kenn mësuma ko wax te man laajte naa ko feneen bu ma toogee mën naa am ma sànci sama religion ca bëgguma ko sànci ci saagaari président mu invité ma ku ñuy wax Benson Obasio benn milliardaire nee na ma voyagé naa ci Concorde vingt sept fois xam nga milliardaire la mi nga am xàppeeg la bi ma bokk moom taabal ma ne ko yow catholique nga mu ma waaw ma ne ko man daana laaj mu ma loo may laaj ma ne ko lu tax Pape Paul Ciss takkut jabar mu mer na ma waat yu teel ma dis baat yes lu tax nga wax ma lu bon mi man a ko rees me mekki niwa kiya dalal dalal bul mer mu jóg mer ànd ak garde yeeg autorité bi ma àndoo yëpp ñu dem ci zone d'honneur bi maag si fekk mu ne ma fii waroo fi dugg ma yëkkati sama passeport diplomate jox ko wan ko ne bi nga amee laa amee ñu toog mu ne ma loo bëgg man dama ne may tontu mu ne man mënu ma laa tontu ci loolu de ma ne ko xaaral man ma tontu la pap possible bu bàyyi ma xamutoon jabar fu ngeen di jëlee pap pap ba bàyyi ma xamutoon jabar fi ngeen di jëlee pap moo tax nañ sant yàlla damay wax nag la ca Tiwaawan ak ak la ca ñeseen ak kër yi ci des liñ liggéeyal yàlla billaay remise bi sax xaju Sénégal remise bi waxuma la pegg li maam boobu Tuuba liggéey ak Alaaji Abdoulaye ki doomam maam Alaaji Malick daa demal kër Choma liñ liggéey ci senegal remise bi sax xaju Sénégal man danaay wax ne bis pénc bu yonenti yaram moom xaarifooni billaay rabbu yàlla nag bu ne bu boobaa moom it dana rabbu dana tibb ab tibb ci ñi war a dem safara yóbbaal jat ma ne bu boobaa nag man Ousseynou bàyyi leen ma ñi ci des ma def yàlla intervention bu ma defee intervention bu lànkee danaa ko dugg moom yàlla xenu ko ba ca kaw su ko roccee nag danaa ko duggoo duggaat busula ko su ko roccee danaa ko songaat lalawaale ko su ko roccee danaa ko duggaat faqat ko su ko roccee danaa ko duggaat lalawaale ko su ko roccee danaa ko duggaat nengeñ su ko roccee danaa ko sido bu damm bu dammee nag di wuti ko comme jàmm mën a gaañe daw leen dugaal nan bu dee jë cuuj ba man da xayma gaa yi siikar leen jëmme aarif mbiram day foor sidi baax am mën a ko nen buy tëbantu ci kaw doj baada buy tëbi teen fëde yi ku yi weddi nooni baax am ma tafsir omar ku tëbi seyit na ñaanal leen ko suuf ko si garde na mbër si di barxama jambuy jaamu yàlla ba mu xooko booba jaam laa ñee tafsir omar kuta màggal si di barxama na ko tafsir omar kuta ñee naa la xam nga yombul mbaay yow mi yóbbu waale si di barxama na ko saxat bu lonku ay wagon de teer gaara tax góorgóorlu leen teew fa garba Sidi Baar am na ko roxo gu xowaat gu bëri salte du eb marchandise dañ koy xalangal fa garba Sidi Baar am na ko googo roxo moo dem a du soppee bu faafeex jëmmi ma coob par ba faafeex Sidi Baar xamaa